damay saisir nag occasion bi parce que contexte bi ñu nekk te xam ne euh, wax li ñu war bare na euh, woote woo population bi ndax ñu dem vacciné ji euh, bañ bàyyi bañ a bàyyi seen loxo dellu ñi vacciné wul woon vacciné ndax ñu aar seen bopp aar population yi aar seen njaboot te ñu bañ a yàq li nga xam ne moom lañu liggéey ba léegi ci ci xeex ci xeex mbas mi. ñi nga xam ne jot nañoo am ñaari vaccination nag ñoom tam ba taxawaay lañu ñu war taxawee. Euh, xam ngeen ne fi mu nekk joxeeguñu benn consigne euh, bu ñu ci tolloo rek ministre de la santé dina ci taxaw joxe consigne mais pour le moment ñi nga xam ne vacciné wuñu vraiment maa ngi leen di woo saisir occasion nga xam ne mooy occasion décoration bi ñu ñu jagleel. ñun agent de la santé pour ñu ñu dem vacciner ji aar seen bopp aar seen njaboot aar askan bi aar Sénégal jërëjëf jërëjëf